danoo wax ni daara yi ci boppam dafa war a doon place boo xam ne bu fa nit génnee bu demee école donte ñaar fukki at la def ci daara yi wala fanweeri at su génnee dañ ko war a xàllal aw yoon ci biir éducation nationale ba mu mën a jàng lépp lu mu bëgg jàng ci français ba yegg ci ay université waruñ koo wax ni ko daga âgé cancer bi nga xam ne douze mille personnes at mu jot dana leen di dal daanaka 8000 daan ci faatu te jigéen ñi di ci loru muy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus di leen faagaagal wax nañu ni wax jëf en tant que parti daf ciy dugal loxoom ngir bu ëllëgee assemblée nationale wala bu dul assemblée ci waxtaan yi député yi di def ñu bàyyi ci xel ñooñu ba lii ñuy wax radiothérapie ay mammographie ak chimiothérapie yi nga xam ne dafa cher te population bi seen loxo jotul ginnaaw état dugal ci loxoom ba li ciy décédé li ci faatu wàññiku bu baax a baax wala mu jóge fii waxtaan nañu ci mbirum napp gi napp gi it lañ ñu ca wax wax nañ ko piroog yi nga xam ne dañuy dem ci àll bi ci biir géej gi di fa paan te duñu leen mën a def géolocalisation posé nañ ko bañ ci jógee it gis ngeen bañ demee fu mel ni ngaay la leen soxal soxal na waa Mbàkke mooy ñi nga xam ne ñoom réew mi daf leen soxal ba dañoo gëm seen bopp di defar ay dàllu fii artisanat artisanat nga xam ne ñëpp xam ne ni école bu rejeté nit rek artisanat moo ko jël mooy diggante mécanicien yi diggante menuisier yi diggante tailleur yi ñooñu ñëpp mu mel ni dañ leen a sàggane la nga xam ne wax nañ ko ci mooy nanu fexe ba la ñu soxla lu mel ni tey ngaay dàll yi ñu soxla di ko importe di importer talon bi lu mën a ñàkk la fu mel ni ngaay der yi nga xam ne màggalu Touba gàmmu ngénte yi ak takk yi li ñuy jëfandikoo yëpp der yooyu dañuy jël di ko exporté génne ko ci réew mi ay usine di ko defar di ñu ko jaay jàpp nañu loolu lu war a mën a dakk la ci réew mi kon loolu lu ñu war a mën a bàyyi xel la tem yi nga xam ne yëpp nag wax nañ ko mooy thème yi nga xam ne kenn ku ne mën nga koo bind jàpp ni dafa bokk ci programme wax jëf Thank you.